boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo aouzu billahi min ashaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa asxaabihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar kenn ku nekk ab nuyoo akub ziyaar bu méngoo ak wàccuwaay bi la suñu jox ñoo ngi ciy jiital na kilifa yoon wi di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñoo ngi ñaan suñu borom dolli ko wér te dëbb ko kàttan te yokk aw fanam ba li mu yéene ci yoon wi suñu borom defal ko ci lu kawe njottam di barakat Cheikhul Khadim di nuyu mboolem bokki daayira bi yépp góor jigéen mag ak ndaw mboolem ñu nekk ci biir bas bi ak ñuy dégg suñu kàddu ñoo ngi leen di ñaanal yërmaande suñu borom ak lu njëggalam barkeb sëñ Tuuba sëñ ji li ñoo ngi lay ziar bu baax yàlla na suñu boroom dëgëral te may la kàttan ba li nga yéene liggéey ci yoon wi suñu borom def ci lu ñoo ngi rafetlu bu baax a baax kàddu yi li ngay wax ci nu nit yàlla na ko suñu borom def ci suñu jëmm ñu ngi koy am yaakaar te di ko ñaan suñu borom danga baax rek nit nag ni mu toll noonu lay waxee li muy yëgit loolu lay génn ci làmmiñam waaye noo ngi ñaan rek yàlla suñ suñu borom nangu lépp te barkeel ko barkeel suñ Tuubaa nuy yëkkati sunu kàddu di ko sof rek fii mu bàyyee lu baax day moo du doy waaye wax dëgg yàlla kàddu yi mu yëkkati doyoon na sëkk ci jataay bi ndax kàddu yi fàttalante rekk la kàddu yi soññante la kàddu yi dollente la yeneen kàddu yi ñu ciy sobitam du benn biir kàddu yi mu doon waxtaane ndax dëgg moom genn rekk la waxin ya nag mën naa wuute waaye genn dëgg rekk lay doon muy dëggu yàlla gi kon noo ngi rafetlu jataay bi bu baax noo ngi ci am mbégte itam ci sunu biir xol noo ngi ci dolli sunu yaakaar di ci gën a fet di lewaat itam sunu yitte ak sunu pas-pas ndax boo gisee xoolee baas bi ay tuut tànk rek ñoo fi nekk mu mel ni mag ñañ bàyyi ci biir kër ya ñu xamoon importance li ñuy def ñoo koy fees ndax fii ngeen tollu lii ngeen yittewoo mag ñi bañ cay toll yittewoowuñ lii moo tax ñuy rafet njott bu baax a baax ni su ngeen àggee fi mag ñi àgg yéena leen di gën ma nansiq min ayatin aw nunshiha naati bi xayrin minha aw misliha alam taalam anna allah ala kulli shay'in qadir noo ngi rafetlu bu baax a baax jataay bi mu mel ne nag àdduna ci boppam moo am melokaan am itam nu mu baaxoo mooy nu ko sun boroom tuddee mooy kërug waraakoon la moo tax waykat ba doon wax ni jëkk ko wor addunaay sa ndam bala la wor jëkk ko wor mu rus ba dee di sa tiitar ku mu àndal lu yàgg-yàgg dalay wor bëgg laa nax ba wor la rekk a di lim nar adduna moom ak lum la mën a may bay boo nga xam ne seen bis a ngi ñëw yaag moom mu ni war na buur war baadoo la wari kàngam war na ñoo xamante ne ni seeni mbir moo ëpp say mbir war na it ñoo xam ne seeni yëf moo ëpp say yëf kon ku ci dund ñaar fukki at xam nga ci àdduna loo ko bàyyee ñaar fukki at rek laa ko de waxuma fanweer waxuma ñeent fukk ñaar fukki at yu mat ku ko dund ci àdduna xam nga ci àdduna loo ko bàyyee kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax suñ borom li mu wax mooy dundu waraakoon la li ciy neex dafa yàggut te seytaane di mbër moo bari doole te am kàttan te mën a yàq te ngóoraam gépp ak force bi ko yàlla jox jëmewu ko lenn ci lu dul gàllankoor sunu dox sunu diggante ak sunu borom seytaane loolu dong mooy mission amaatul beneen mission bu ko tax a jóg la mu waxoon sunu borom rek mooy danaa toog ci sa yoon wu jub bi danaa leen gàllankoor ba duñ dem danaa leen bewloo danaa leen moyloo yàlla waaye la ca suñ borom teg rek mooy bu boobaa yéen ñëpp danaa leen boole tàbbal sawara loolu moo tax nu war di fàttalante war di soññante di laayante biir ba kenn ku nekk ci ñun mën a fet diliwaat ak laxasaayam yokk yitteem yokk ay jéegoom daw jëm ci suñu borom loolu yi rek mooy tax bis yi di bis yu am njariñ nu tudde ko nag bisub way dawlu mooy bokk ya dem te mu wóor ne duñ jël siwaat te am na lu luñ yittewoo foofee ñu nekk te mënaluñ ko seen bopp nu fas yéene féete leen ca wet googa ba keroog ñu leen di fekk yàlla na ko yàlla nangu te ful ko barkeb sëñ Tuuba nun itam nekk giñ fi nekkandi te du ajuwut ci sunu coobare te waxunu kan lañ fiy jóg war naa tax itam nu góor góorlu yokk sunu yitte ñoom itam ci jëf lu baax ba keroog dem di dikk ndax fii nu nekk sunu coobari indiwunu fi loolu nun ñëpp xam nañu waxtu dem itam kenn waxunu ko xamunu tey la xamunu suba la xamunu fekki at la waaye wóor na ñu dan danu fi jóg kon nopp lu xaju fi loolu moo taxoon sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doon wax mag ñi ni leen na ngeen wàcc lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci biir bàmmeel yi su ngeen demee ci biir bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd da ngeen ko tëdd ab tëraay nga ca kanam danga tëdd ba tëdd loo bëgguloon a tëdd kon kooku yeete na waaye doomu aadama dafa dëkke fàtte ba pare doon ab tooñkat ba pare doon ku réer zalumun jahul yàlla mi ko bind nag moo ko gën a xam moo tax mu indi ay ndaw yónni leen ci noonu ngir nu wan nu fan la teg suñ tànk bi ndaw yooyu jeexee mu indi ay ay wàlliyu yu wuutu ndaw yooye di yeesalaat ngir mi ngir bañ rekk doomu aadama na sax moo tax boo duggee ci biir alxuraan da ngay gis fasakir fasakir fasakir rekk muy fàttaleel fàttaleel waaye lan la ñuy fàttali lan mooy li suñ borom waxoon wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni fii moom indiwoon nu fi dara lu dul jaamu yàlla moo tax képp ko wan gannaaw jaamu yàlla ak lépp loo mën a ne ba réussir ca booy ba nga yëkkat sa loxo waat ni dangaa échec ndax loolu la woon a jóg ku wan gannaaw jaamu yàlla ak loo mën a nekk ba réussir ca ba jàpp ni am nga ca ndam booy boo nga waat ni danga échec ndax lala taxoon a jóg moom moom àggoo ca loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax te ay nit a ngi fi yu am xel yu am kàttan te am doole waaye fañ daw jëm bokkul ak fa leen suñ borom joxoñoon ñoom nag defe nañ ni seen bàmba maase na waaye bu ñu xoolee tuuti danañ xam ni fañ teg seen loxo du fa àdduna montagnum glace la boo ko séenee day lerxati ak weexaay bi rafet di mermeri nga defe ni dara la waaye boo ci àggee da ngay fekk mu sey du dara mooy tax mag ñi ci dégg gi ñu dégg wolof ñu naa la àdduna mbaxalum doj la ñi jëkk taal ak ñi mujj taal ci yam kenn du yàq kenn kenn du ñorle kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax seytaane nag day mbër mu am doole te mën a yàq yàq gi itam dafa dafa efficace ba bu lay yàqal doo ko yëg nit a nga ci dara fi ni di ca ŋar-ŋari waaye tey boo taxawoon bëgg ko caa jële mën na laa jaay bakkanam ndax jàpp na ni dara la seytaane ko rafetalal ba jàpp ni loolu mooy àdduna ca fekk loolu du dara jayi seytaane rekk la ku amul ndimbal dëgg doo ko xam ndax dañuy nettali benn nitu yàlla koo xam ne dañu ni dafa gis seytaane mu ne cib jataay waaye ñaara fa nekk kenn ki day julli ki ci des day nelaw nee na seytaane yor ak wantaayam di upp kiy nelaw amut soxla ci kiy julli nitu yàlla ko ki wax ko ni ko yow daal yaa bari kii di nelaw nga di ko upp te kii julli amoo ci moom soxla waaye pour nga xam efficacité yàq ak saytaane saytaane dañu ko noppil li may def dara nga ci xamul mu ni ko ah, mu ni ko gis nga kii di julli julli gi yàqu na bu yàgg waaye mënu koo defar waa ji mënta defar julli gi te julli gi yàqu mu ni ko gis nga kii tëdd di nelaw boroom xam-xam la bu yeewoo julli gi baax moo tax moom lay ëpp ndax bëgg mu gën a yàndoor foofu la jamono toll fi mu doon nii nit ñaa ngi ngër ngëri di sonn te ñi xam a kës néew bu ñu xoolee li nit ñi def xam nañ ne dara tegewu ci ci yoon waaye ñemewuñ cee wax ñemewuñ cee wax loolu mooy yàquk seytaane su ko defee nag seytaane day daal di ndax day daldi xam ni am na ak bëggam te day xam ni am na wéttal te la koy firndeel mooy la sun borom wax la am la am na la wax de jahannama dana danaa feesal te laam gim jiital laamu xasam la da koo géeñ te waxu ko ci àjjana kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñu gis ni nag lépp lu baax lu ñu yëkkati yaakaar ci yërmaande suñ borom aku njëgalam seytaane dana ci dugal loxoom xajamal ko xajamal gi mu koy xajamal mooy day fexe ba defin wa du sell te yàlla lu sell lay fay day fexe ba defin wa puukare dugg ca bu boobaa suñ borom daf cay génn day fexe ba defin wa ngistal dugg ca bu boobaat suñ borom day génn day fexe ba defin wa riyaa da cay dugg rëy boobaa suñ borom daf cay génn loolu nag buñ ko seetloo te am ab settantal mu ngi tàmbalee ci fi gën a jege mooy dunduk doomu aadama ni muy yàqoo te nit bàyyiwu ko xel te bokk yi loo xamante ni nii soo ko ñàkkee doo ko amaat bi nga ko amee war nga ko fonk lool ña dee moom kenn waxatu seeni wax kenn waxatu seeni wax kon kay li ñuy waxal mooy ñi fi ne ñi fi ne nag diggante biñ fi nekk di noyyi noo gi di dem di siwaat gis nga loolu boo ko ñàkkee doo ko amaat ci àdduna noogoo gi nag la Sëñ Tuubaa ni mën nga cee jënd àdduna ak li ci biiram defar ci sa àllaaxira ndax nee na moo gën a foor urusu ngalam te mooy temps rek buñ ko doon misaal dañ naa la waxtu rekk waxtu sëñ bi bi mu koy misaal dani mboolem ña tëdd ca biir bàmmeel ya ko ci fëggoon laaj ko loo gën a bëgg loo gën a bëgg mun la dellusiwaat àdduna mooy ak dund rek la soxlawaat lu tax mu soxlawaat ak dund mooy fa mu nekk xam na kaari kaari ba dëgg dëgg xam na ko waaye del siwaat mënta nekk dangay dégg mooy rabbi law laa aqartani ila ajalin xarib yàlla boo ma yeexe woon tuuti rek tuuti rek minute yu tuuti boo ma mayoon tuuti rek mu mën a lijjanti ko waaye mënta nekk isa jaa ajalum laa yastaxiruuna saatan wala yastaxdimuuna du avance du retard waaye taxut doomu aadama yow kañ la yow mooy suñ duggee ci biir bàmmeel yi annaasu niyaamun iza maatu intabahu nee na nit ñi dañuy nelaw yonent sallallahu alayhi wa moo ko wax mu ni kañ la ñuy yeewu mu ni buñ dee la ñuy yeewu boo dee ngay xam ni ndekete àdduna ay gént la boo dee ngay xam ni ndekete àllaaxira mooy këri këri gi mooy dëgg gu weex tal boo dee ngay xam ni ndekete li alxuraan doon wax lépp dëgg la boo dee ci ngay xamee ndekete li la àdduna doon wan lépp ay gént la bokk yi àdduna gént la dara du fi dëgg dara àdduna jërëjëf gént la ay gént la xam nga léeg-léeg da ngay tëdd sa lal gént voyage ci guddi gi am fi xaalis ñibb si tabax fi kër wut fi oto takk fi soxna lépp ci biir gént gi waaye booy yeewoo ngay xam ne naka sa matelas bi wàccoog noonu la àdduna mel li ngay ngër ngëri lépp di ko ngër ngëri di dem dara du dem lépp fii nga koy wacc gis nga am néew ni muy tëdde lépp dañ koy tàllal mooy maa ngi ni yoruma dara am néew lépp dañ koy tàllal loolu mooy maa ngi ni yoruma dara loolu yow mi ko tiim war naa war naa am loo doon xalaat bi nga tiimee néew bi war naa am loo jàngate ci tëraayam bii ba bu ma ko wanee gannaaw sama dund dana soppiku waaye dangay gis ni miin gu ñu miin dee fi mu toll nii tax na amatul benn jeexital bu muy def ci ñun ñàkk jeexital googu gi muy ñàkk jeexital ci ñun daa dem ba néew bi sax amatut bénéfice ci taxaw gi ko mbokk jullitam di taxaw fi mu toll nii sunum néew moom yërmaane yàlla dong ci des boo ko seetloo dëgg dëgg dëgg sunuy néew yi ñu am moom yërmaane yàllaa ci des waaye ñi koy taxaw moom amatuma yaakaar ci ñoom man man laa wax te danaa wax li tax na wax ni amatun yaakaar yaakaar ci ñoom ma nga tàmbalee ci nit ki bu bu noogi dee dee génn rek te mënatul a dem dangay ngay daal di gis ñu ñu génne ñépp kafatoog itam doo dégg mu wax dara day xool rek ba xam dee nag déewut maam loolu dong lay xool moom daal fi mu nii li muy xool mooy waa ji noo gi mi ngi génn léegi mi ngi àjjat moom li muy xaar moom mooy mu ni kësang rek mu xam mu xam ni dee na waaye amaatul benn taxawaay boo xamante ni dana ko taxaw ci kii di waaj a dem ci jéem koo talxiin baatu tawxiid boo bii nga xamante ni ni ku mujj ci saw làmmiñ ñu am yaakaar ci yow waaye duñ duñ wax dara léeg-léeg sax ay jigéen lañ fay bàyyi te duñ toppatoo sax ba xam jigéen ña ndax set nañu wala setuñu wala sax mën nañ koo tiim ba pare di waxtaan ama léeg-léeg fi doon ni nga gis koo xamante ni ni ci ay nelaw lay jaare génn àdduna nelawut day sukuraat bët yi gisatut waaye mi ngi dégg waaye da ngay dégg bokk yi ko tiim daan ne ah kii kay dee na ba pare mi ngi lay dégg de wala ñu lii ko dal de moo rayoon diw te tiim ko ndax dañ naan day nelaw nelawut wàccaayu deewa ci boppam moo moo moo metti moo tar ba mu yóbbu ko daala le coma ñu naan day xam day kiris ak yooyu yëpp wàccaayu dee rekk la waaye dangay gis ni nun duñ ci jëm dara ba tey danga gisaat sunu sunu nasax ak sunu sunu doyadi yàlla xam na ni julleeb néew boo dem téeméeri nit ñu fa nekk juróom-ñaar fukk bi ak juróom-benn mokkaluñ ñaan gi ñuy jàng kooku looy wuti ci julle ba te maa bëggoon tey nga yor micro trottoir dugg ci biir mbooloo mi kenn ko ne nga ne ko ñaan gi ñuy julleem néew jàngal ma ko dara duñ la ko wax kooku loo fay wuti est-ce que xamoo ki nga àndal ki nga àndal kan la ku néew doole nga àndal koo xam daa soxla ndimbal ku ñemewut fa jëm ku fa xamul dara ñu war koo defal intervention yow xamoo fooy teg sa tànk te loolu mooy la xew ci noonu ngay gisee itam fi mu toll nii bu ñu kàbbaree da ngay gis ñoo xam dañuy daw di ñëw dañ leen a raw ci kàbbar yi te fuñ sëlmale ñu sëlmal ñooñu luñ doon wut fuñ sëlmale rek ñu sëlmal da ngay gis koo xam benn kàbbar la am ci julleeg néew yi waaye buñ sëlmalee mu sëlmal nga xam ni kii moom bàyyiwut xel ci lim ñëw lu mu doon maanaam julleeg néew aada lañ ko def rek mooy damay dem ci julleeg diw ga ah su mbooloo ma bare nag day mel ni dañuy gën a bég moom di yii julleeg diw ba de ni mbooloo ma bare ab seet de su ko nawee topp yu bari ab seet kenn du ko nawee topp yu bari la ko boroom këram di nawet du topp yu bari de mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye dangay gis càggante gi am ñàkk a teewlu léegi dëj yëpp lañuy filme ba ci rob bi dañ koy filmer kii filmer moom wóor nañ la moom teewlu ci boppam moom nekkatu fa bàyyeetul xel ki tëdd ba ci néew bu ñu yeb ci biir bàmmeel dañ dañuy yor seen appareil di ko jël nga xam ni yow dem gi nga dem ci rob yow amalatu a njariñ amalul njariñ itam ki ngay gunge te yooyu yëpp dafay am te loolu rek mooy banaliser guñ banaliser dee ndax xëy na bari gum bari ci suñuy bët tax na wàccuwaay biñ ko waroon a jox dëgg joxuñu ko bu ñuy yóbbum néew néew baay jiitu booy gunge nit fu mu ragal yow yi jiitu yow mi koy gunge yaa war a jiitu waaye dañ naan xajal leen néew bi mu jàll gaa yi topp ca di waxtaan gars dañuy waxtaan de jànguñu dara defuñu istixfaar defuñu salaatu ala nabi ñu néew ko cay def waaye ñi ci bari ñëpp dañuy dañuy waxtaan ndax loolu lu am njariñ la déedéet loolu amul njariñ bàyyiwuñu xel ci fam jëm même buñ ñëwee ca ca barab ya ca dencin wa ca ngay jëkk amee déception te amul nu pexe ndax ci loxo yi ñii rek lañ nekk dalay wër ni waa ji moom ni ko def yow noonu dong lañu lay def ndax société bi moom li fi xew mooy suulundu dañuy wàcci ku dee ñu wàcc la mais denc ñu nun dara denc ñu dencin wu wu ñàkk yërmande woo xamante ne ni àndut ak dara dara ci njort lu rafet daa yem te boo fekkee woon kilifa gu wàcc ngay xam ni fii yaa ko sobental waaye du du fu ñu war a sobental lu ne danañ ko indi barkeelu bu amoon ci seen bàyyi ci seen maam yi danañ ko génne ku ne danañ ko xaar suuf su ne danañ ko sotti ci biir bàmmeel noonu na da ngay agsi rek ñu ni waaw bàyyi peel bi doon gas duggal xoolaat beneen waay rek ni ko waay saa yu duggal rek mu dugg ñu ni jox ko doo am lu dul rek dégg suuf si dix minutes bu ñu ne leen maa nga bàqiya booy dugg ci biir fekk ñu suul bay génnaat ndax noonu lañu war a taxawoo mbokk mu dem est-ce que bàyyi nañ xel fi mu jëm pax moom yi mu jëm ndax ñu ngi koy sóoraale ñam fay fekki ndax bàyyi nañ leen xel mat naa bàyyi xel de te yooyu yëpp fi to nii war goonu saytaane war rekk la mooy danu ko yombalal banaa banaliser ko ba kenn defatu ko muy dara waaye du yomb boroom xam-xam yi ne ñu ab néew buñ ko tegee ci kaw jàllub suuf boobu yi dana yuuxu yuuxu goo xamante ne ni lu dul doomu aadama dana ko dégg ci bu leen ma ci dugal bu leen ma dugal ci pax mi te ñi la tiim moom bala ñoo tàggoo yow dañ laa yëpp ci biir pax mi ndax buñ ko doon dégg duñ la ca yëpp waaye heureusement ñoom duñ ko dégg lu tax mooy pax mi dana la parasanté boppam waaye nit ñi duñ ko dégg ndax moom kër la goo xamante ni moom nun ñëpp noo ko gisandoo benn bunt la te boo duggee ñu sakk ko benn bunt képp la am te booy dugg ñu di ko sakk amut fenêtre ab kilim néew fa wàndateur néew fa boole kook lëndam ak i bagage yi boppam yoo xam ne bët du ko gis néew bi doo nga koy gis yu doy waar la yoo xamante ni boo demoon ci silkul jawaahir danga xam ni góor góorgóorlu jotaat jot na jotoon na naka jekk waaye góor góorgóorlu gënati naa jot muy kenn ku ne jéem a taxaw ci sa bopp loo man ci lu baax nga di ko defal sa bopp soo fi jógee nag ñu yàlla dogal ñu tasee yow di la taxaw loo ci am baax na nga yaakaar yërmande yàlla waaye ku bàyyi sa lépp ci loxo loxoy nit ñi moom da ko réccu ndax nit ñi moom amatuñ yitte ci dara dara buñ suulee ba pare ñaan nga ñuy joxe ñaan ko nga gën a gàtt la ñuy joxe ndax bëgg faa gaaw a jóge boo ni woon dañ fi daaw ñun la xaju fi fii de de su ko fi defee moom waa daaru de laay gis ñuy jël seen moom ci bu six jotee bu ñu amateem néew dañ koy fanaanal ndax li ñuy def moom xaju fi diggante foofu ak timis waaye bu dee fii moom six mën nañ cee suul cent personnes bala ñoo noddu gee bala ñoo noddu timis cent suul leen te du dara na sax rek moo nu ko teg loolu dooy doy waar la te mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax doomu aadama war nay laaj waaye boppam lay laaj mooy fii ma ne lu ma fi indi xam nga defoo demande ci naa dem àdduna kon war ngaa laaj lu la fi indi war ngaa laaj itam loo fiy def bi ñu la fi indee ba pare ginnaaw indiwoo fi sa bopp dañ la fiy indi war ngaa laaj luñ la fiy def loolu lu mu doon te dañ la da fi jógee war ngaa laaj léegi fu ma jëm fan laa jëm bu ma fi jógee fan laa jëm foofee nga jëm am na koy taseel war ngaa laaj ki ngay taseel kan la yooyu boo ko laajtee moo lay puusi ci jaamu yàlla ñu bari nag dañoo jàpp ni suñ borom moom daa démissionné ci nguur gi mooy da koo joxe lépp dem toog na lee te loolu amut loolu amut suñ borom démissionné wut ci nguur gi génnewu ci loxoom daa yàkkamtiwul nag lenn lu ci nekk da ko wutal waxtu waaye su ci àggee danga na ko def bam ne danaa leen rey ak léegi delluwaatu ca te bis bi seen ñu gàddu sóol yi ni nga gëmee loolu ngay gëme ni leneen la ca des suñ borom bu ci àggee noonu la koy defee am na ku doon wax sëñ Abdou Xaadir ni ko damaa bëgg nga firil ma alxuraan sëñ Abdou Xaadir ni ko kullu nafsin saayiqatul mawtu gëm nga ko mu ni ko loolu kay amul nattable loolu moom ñëpp gëm nañ ko mu ni ko léppi alxuraan noonu la mel lu suñ borom wax ni danaa ko def danaa ko def comme ni dana rëq sa ndigg dana rëq sa ndigg te kenn du ko saafara te kullu nafsin saayiqatul mawtu moom mooy ku judd repp nga waaw ku judd moom repp nga moom kon mat naa bàyyi xel te kiiñ ko séqal faalun li ma yurid la faalun li ma yurid moom buñ la ko bëggee tekkil ci nga man koo dégg rek mooy maa tey ndax dañu lu ma neex laay def fii ci àdduna koo fi dégg ñu la am na doole te kenn yaru ko te nee na lu ko neex lay def boo bëggee sa sutura moytu ko fii ci àdduna rek laa wax nit koo xam ne dañ la am na doole te kenn yaru ko te nee na lu ko neex lay def boo bëggee sa sutura bay boo nga moytu yàlla kenn yaru te moo ëpp doole ñëpp te nee na lu ma neex lay def kenn du ko ni bankal ku la ko gën a xam moo la ko gën a ragal ndax ni muy doxale ci jaam ñi moo lay xamal ni la suñ borom dara safu ko ni muy doxale ci jaam ñi moo lay xamal ni la suñ borom dara safu ko dara dara li ñuy wax ni dara safu ko yii doomu aadama yi di xalaat ndax nangam ak nangam bu dee nangam ak nangam nangam mën naa xew yooyu yëpp dara safu ko te ni mu jëflante gaa yu baax yi moo la koy xamal ni mu jëflante gaa yu baax yi moo la koy xamal tàmbaleel ci Moustapha sallallahu alayhi wa nga xam ni mooy gën gi bindeef nga xam ne sukuraat si àgg na ci moom noo xamante ni dañ nañ ko takkal bopp bi ndax bopp bi daa mel ni luy a toj mu wut morso takkal ko te luñ gën a takk mu ne nañ gën a xëcc ndax metitu bopp dem ba taaj paanu ndox di ca xooj loxoom di seppi di ko raayal ci kanamam ndax bëgg tàngoor yi wàññi ko te yàlla ni ko yaa ma gënal ci jaam ñi yaa ma gënal ñëpp ku ma bind yaa tax ba pare jaare la ko foofu nga xool sahabatul mel mennum abou bakar moo ci dee ci kaw lalam ñi ci des ñëpp jaasee leen génne àdduna yàlla di seetaan loolu yàlla moom yow nga bëgg a teg sam xel rek naan diw laa àndal moo tax nangam ak nangam damay demee àjjana dañuy waaxu dugg wala dañuy yow rek yowoo ji àjjana ay yaa ngi nax sa bopp demewut noonu ba ci sëñ Tuubaa mi nu yaakaar danoo dañoo ñëw fekk ko mu dem xam nga fi mu doon bu ko nit defee dañ koy yéem dañ naan moom dañoo dañoo ubbi rek fekk ko mu faatu di ko yéem sëñ Tuubaa dañoo ubbi fekk mu dem dañoo ubbi dong fekk ko mu dem yoo ci ngay xamee ni suñu borom dara dara sëfu ko lenn loo war a mën a sukkandikoo ba tax nga ñeme yàlla dof nga te dee dafa secret boo xamante ne ni ñi dem ñoo ko xam ñi fi nekk mënoo leen a liyaar ba mu dugg ci seen bopp loolu mooy problème bi ñi dem rek ñoo xam dee ni mel waaye ñi nga xamante ni nii ak séeguñ ci mënoo leen a liyaar ba ñu xam boroom xam-xam yi wax nañ ci bay bëgg a de ñenn ñu ni déedéet mi ngi mel ni juróom-ñaar fukki jaasi yoo xam dañ ko joxi ponkal ñu tiim la dóorandoo la ko benn yoon noonu la dee mel ñenn ñu ni ñu ngi mel ni cëggub dég boo xamante ni dafa sax ci sa biir yaram ba fenn fu ne mu jàpp fa ba cat li génn ci kaw ñu jox ko ponkal ni ko buddi ko mu koy nocci ñu ni dee noonu la mel te yooyu yëpp mooy bëggoon rek nit ñi mën a moytu mën a teggi seen tànk fiñ daw jëm waaye dafa mel ni nit ñi tey lañ gën a nelaw daa mel ni nit ñi tey lañ gën a sàggane seen bopp tey lañ gën a fooyee seen bopp doo xam ndax ay bàyyi ma lañ sax wala bàyyi ma daan tane ndax bàyyi ma amutum xel day mujj yow da ngay am tiitaange ndax li la ci yàlla xamal ak néew te nit ñi bàyyiwuñ ko xel te mënoo leen ko wax ndax moom boo leen koy wax rek ñu dañ dañ lay noonu fi mu toll nii mbooleem waxtaankat yi wax di tudd dee ñooy noonu gaa yi soo waxee ñu naan dañoo soof dafa mel ni dee rek lañu xam wala daa mel ni àjjana seen loxo la ne dañoo bëgg sawara mel ni ñoo ko moom sëñ sooy bu de da daan wax ni sawara day moom ma ko te su ma ko moomoon kenn du ca tàbbi waaye xam tàngoor wa ak xam sañ-sañu ki ko moom moo tax may alerte nit ñi bañ bañ ñu tàbbi te gis nga téeram bi ñu baree bari dañ dañ koy wan gannaaw ndax li muy tudd sawar rek ñu bari boo xam ne eh, sëñ sooy bu koy moom ñu bari dañ naa la sax ndokk bi mu doonu xalifa général ndax bu doonoon xalifa général moom yëf yi dana jaxasoo mooy xamal na nit ñi doo xam lan lañ bëgg te nit war naa mën a góorlu ba li ko suñ borom jox ko kës néew ci ak dund mu bañ koo fooyee waaye nit ñi dañuy foo rek te seytaane nax nanu ba xuus nañ ci foo xamante ni moom génn nu fa yombatut ndax bu dee lu baax seytaane dox na suñ digg roy ko lu baax moom nun ñëpp dañ koy yéem rek waaye duñ ko roy ba ci sëñ Tuubaa mii nu amul lu dul moom bu fekkoon dañ koy roy nag ni weesu nañ fii nu toll waaye royunu ko dañ koy yéem sëñ Tuubaa moom képp ku ko roy 24 heures teg say morom ku ko roy 24 heures laa wax 24 heures jarul guddal 24 heures yoo roy sëñ Tuubaa teg say morom say moroom ci boppam dañu xam ne yow mii génn nga ci seen biir waaye dañ koo royut dañ koy yéem rek dañ koy yéem bu ñu waxee rek ñu ne est-ce que sëñ Tuubaa amul morom sëñ kenn la kennal sëñ Tuubaa waxi kese ju amul benn njariñ léeg nga gis koo xamante ni ab jukki lay yor boo xamante ne ni daanaka moo ëpp kaamilu alxuraan maam jërëjëf sëñ Tuubaa rek cay ne muy répété ndax sëñ Tuubaa noonu lañ koy sante dara gënu koo doon i tàppale te boo ko waxee mun la yow xamoo sëñ bi du dara waaye ab phénomène la bu bees bu xew ndax noonu lañ koy sante de su ko sante noonu daa am lu jafe woon mu jàpp ndalal ko mooy jaamu yàlla daa jafe woon mu jàpp ndalalal ko ba nga xamante ni fi ton toll ni ku ne mën na ko nga xëy lànk ba pare bëgg a jëfandikoo saw làmmiñ loolu dafa yéeneem te yooyu yëpp fi mu doon nii seytaane la lu tax seytaane dañu ni sëñ Touba mënee su ko roy maanaam baat la fi mu doon nii boo xam ne ñëpp dëggal nañ ko te ay fen la baat la boo xam ne ñëpp dëggal nañ ko wax ñaan yii sëñ Touba moom kenn mënu ko roy yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a naqaree roy te moom la yàlla wax ni roy leen ko yonent bi. moom la nu suñu borom wax ni roy leen ko te moo gën a naqaree roy ndax bidaayatul maahi nihaayatul xiyaar mboolem ñu baax ñu ñu fi wax seen ñob baax baax mooy tàmbalib sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku ñun la roy ko waaye nanguwu roy dañuy yéem rek boo ne sëñ daal ñu ne eskay léegi sax dëgërëb sëñtuwaat bi mu waroon a am martaba bi mu waroon am ci sunuy xol wàññiku na léegi dangay toog ci baas waxtaani Sëñ Tuubaa ba waxtaan wa jeex nga seet caataati caataati kër gi nga tudd ca kenn nga gis ñuy yuuxu di dañ ndax ne dangaa tudd seen sëriñ te boo leen laajoon koo kii ngi tax ngeen ni dañ lum leen jariñ sérieusement rek waa jooju ngay wax moom lu mu la jariñ du la wax dara danaa la sekk mooy sama sëriñ rek te nga tudd Sëñ Tuubaa mi borom yëf yi mu ni kutt di la xool yooyu yëpp seytaane moo dox suñ diggante li ñu war a jariñoo ba tax na ci am po dugal ak waxtu yi yàqu jëfandikootuñ ko te nit su fekkee mi ngi bàyyi xel boppam daraam waratul a neen benn minit booy bàyyi muy jàll waratul a am su fekkee yaa ngi bàyyi xel sa bopp boroom xam-xam yi dañu nit bu dundee juróom benn fukki at yoo xam ne bis bi seen nga nelaw ci juróom ñaari waxtu ñaar fukki at yi danga koo nelaw nga des ñeent fukki at fukki at ak juróom-ñett yi toggu la ci jëf nga dese lan ñaar fukki at ak ñaar yooyu nga doon wut xaalis bëgg cee takk jabar bëgg cee tabax kër bëgg cee yor sang njaboot bëgg cee jaamu yàlla loo xam ne moo lay yor ca këru ëllëg ga nga xam ne amul fu mu yem boo ci bëggee boole di yaataa yumbe xamoo fi nga jëm te pomee ëpp boole ko nag ñu dëkk ak ñoo xamante ne ni sunu jub da leen arrangé wul ba tax na lépp loo xam ne dafay gàllankoor sunu jub danañ ca xalaat jëmale xoolal niveau technologie bii xew rek appareil yi fi mu doon ku ko amut yaa ngi fexe noo ko wute te lim ni yóbbul ci temps fi mu kenn xamut nu mu toll delluwaatal nga xool sa 24 heures nga xam ne mooy benn bis 24 heures xoolal julli yu juróom ñaata la ñaata la ciy jël julli yu juróom yëpp boo ko globalisé ñaata lay jël ci 24 heures yi matut une heure de temps mu des vingt trois heures vingt yooyu loo ciy def ab jullit dafa war a fonk waxtu waaye vingt trois yooyu loo ciy def da gis ñoo xamante ni fi mu doon da ngay tiim mu kàllaf magum jëmb de mu yor appareil bi tiim ab jeu di jeu di wax gañe naa ak perte naa gañe naa perte naa ñetti waxtu boo paree égal zéro day te loolu fi mu doon nii ñàkk daa mel ni ndax dorog la bu tu bu tubaab yi sànni dorog bu ñu yi sànni nga xool ñeneen yi ci des ñu nekk ci whatsapp bi fukki groupe fukki groupe ak juróom nga bokk ci groupe bu ci ne la cay met ci message dana ëpp cent benn message bu ne nga bokkoo képpar ñi déglu ko tontu boroom ñaata ci temps lay jël te benn message bu ci am njariñ amul sawaay na nga def sawaa gëj naa la gis nga ni maa ngi fi ci loo ne seen naa la bi nga taxawee barab sàngam nga ne ah dama doon kii nàngam ak nàngam wax yu ñàkk fayda yoo xamante ni ni jërul sax waaye dangay gis ni fi mu doon ni temps bu baree bari lañ ci yàq maam daa dem ba yàq sunub liggéey dafa dem ba gone yi jàng mu yàq seenum njàng mag ñi yàq na seen yitte boo demee ci kër yi ay jàmbur nga fay fekk da dem ci kër fi mu doon fekk borom kër ga ak soxna sa ak doom ya kenn ku ci ne mi ngi concentré wu ci appareil kenn du tudd kenn ba seen tëri jot da dem ci grand place su gone yu góor yoo xam dañ daan toog di waxtaan di weccante xalaat ci seen adduna ak seenu liggéey waaye léegi kenn du tudd kenn ku ne nga foo yu fale jël say casque rob sam nopp man leen jóg leen tëri kay loolu ginnaaw grand place bi wetti la tudd leen kay ne mën naa tëri sam néeg lu ah, ñuy def ci grand place bi ginnaaw kenn du tudd kenn te temps boobu di yàqu fi mu doon ni bàyyiwuñ ko xel nga gisaat yi itam ci fi mu doon ni guddi gis gaa yoo xam ne daanaka ci youtube bi la ñuy fanaan maanaam dangay dem ba 4 heures de matin 5 heures nga gis gaa yoo xam ñu ngi en ligne ci la ñuy fanaan te boo ko bëggoon a julliloo ñaari rakka képp fi mu doon nii wala nga bëgg koo jàngaloo ñaari isi bi alxuraan wallaahi asim du ko jàng xalaatu ko sax waaye ci appareil bi lay ne bañ ñu kurru fajar mu gaaw sànni appareil ba daal di xëcc malaan mi banque daal ne eh, ndekk te bët set na te loo am connexion lay jar te loo ko laaj ci daayira bi du ko indi cotisation bi daayira boo ko laaj du ko indi te du manqué connexion bu ñuy dajale addiya du indi dara yu jëm ci kër sëñ ba dara du ko indi avance lay def du mottali ba pare nga ni lu baax nga bëgg bi xaddiril kat di takk sibul maali fa man talabal ola zaharal la yàlli soo bëggee lu kenn amut dangay def lu kenn deful waaye su dul loola da ngay des gannaaw nga gisaati itam ci nax yi ñuy seytaane di nax ngir gàkkal sunu dund partager gaa yi lu bon rek lañuy ñuy ñu ci bari téeméer boo dem juróom-ñaar fukk moom lu bon la ñuy partage fu ñu gis lu baax moom dañ koy jéggi waxtaan wu am solo déedéet lu bon rek bu ñu gisee lu bon daal dañ la koy sànni te buñ toogee ay minit yu tuuti ubbi woo ko da woo téléphone saa yi xanaa gisoo li ma la yónnee nga xam dañuy am bàkkaar ba pare yóbbee la ko ndax danga koy xool ba pare commentaire bi fu ñu dégg lu négatif dañ la koy jox te kii tasaare lu bon moo ki ko def ñooyam te duñu bàyyi xel lool xoolal xawente sutura gi am léegi xoolal whatsapp bi li ciy daw ci ay kàddu yoo xamante ni da nga doon mën a wat ni ci gannaaw ni buñ la ko daan wax danga nga naan mukk loolu mënta am ci àdduna waaye xoolal fi mu toll nii ni mu gàkkale sunu dund maanaam daa bari nit ñoo xamante danga leen a fonkoon ubbi sa xol def leen fa gën a sori te fi mu toll nii jaralatuñ la jàdd ndax lu rëcc ci ñoom nit ñi jot ci tasaare ko ndax gars yi moom whatsapp bi lu ne la wax lu ne lu ne la wax te yooyu yëpp ci li tax sunu dund mënatul a jag ni nu ko bëggee yooyu daa bokk ci yi koy gàllankoor te loolu ab jullit waru ci woon a bokk ab jullit waroon naa mën a programmer téere wuñ ko appareil mën na koo utiliser waaye na xool faas bi baax nga xam ne mën na koo jariñoo ci àddunam mu jariñ ko ci àllaaxiram mu jëfandikoo ko ci waaye day am noo xamante ni boo ko ñi toppee daf lay lor te du la amal njariñ loolu itam gàllankoor la boo xamante ni ni nit ñi bàyyiwuñ ko xel dafay dem ba orma ji nga xamante ni moo doxoon sunu diggante ak alxuraan orma ji dox sunu diggante ak xasida yi fi mu doon nii boo seetloo mi ngi wàññiku ndànk-ndànk da nga gis taalibe yoo xam ne li ñuy jàng lépp ci biir appareil bi la ne léeg-léeg nga dem ci gone yi kenn koo xam ne boo demee këram genn xasida doo ko fa genn léegi lépp ci biir appareil bi la ne nan la orma ji demee fi mu bu ma soxlaa ci wana wi appareil dama ko yeb sama poste dugg ak moom ci wana wi te kaamilu alxuraan daa ngi ci xasida yaa ngi ci boroom xam-xam yi def nañ ci fataawaay yu bari dagan nag dagan yooyu yëpp d'accord waaye orma ji mooy mooy wàññi ko orma ji ma ko joxoon sama jëmm ndax boo doon ab téere la faaw ma wut ku ko dénk door a dugg ci wana wi waaye téere bi moom duma ko yeb sama poos di dugg ci wana wi léegi bi mu doonatul ab téere nag léegi su ma ci paree rek dama koo dugal sama poos dugg ci biir orma ji day dañ maam dañoo indil lu bare bari fi mu toll ni kenn koo xamee ñaaree fi mu toll ni sëb sëriñ jaralti na la jóg waaxu fekki ko déedéet da nga naan sëñ bi woo ko nga ni naa fa dem ñun la moo waaye jëru ko xaaral rek daal di composé ne la mu ngi ni waxal ak moom yooyu yëpp ci seytaane teg ngir gàllankoor sunug dund képp moo tax waaye bu ñu xamoon dëgg dëgg gaa yi tëdd fee la ñu nekkee danañ gën a góorgóorlu waaye da caa bari nag lu nu ump ndax bu ñu fekkee fii ab rob moom li ñu lay wax mooy ma nga àjjana di du ubbeeguti buntam xanaa faneen lañ leen di nekk ndi kay waaye àjjana moom ubbeegul ay buntam sawara ba tax suñ borom di wax ubbeeguti buntam lu tax mooy tribunal ba daa taxawagut te gaa yee dem daa am luñ ñu yóbbaaleel nun nu am luñ leen ameel kon faawu ñu daje fencoo ba suñ borom àtte suñ diggante ba ku ne sa gannaaw leer nga door a dem lu yomb dégg la min waraihim barsaqun illaa yawma na te dekki amagut kon fan la gaa yi jaar ba dem àjjana mat naa bàyyi xel tëraay ba dafa yàgg ndax ñi jiitu woon ba léegi ñu nga tëdd te ñun ñi daan leen fu fekki tëdd fa ak ñoom lu yàgg suñ borom door a jublu suñuy mbir moo tax ñu soxlawoo ñaan moo tax jataay yi am solo torop daje jàng xasida yéena yool ba bokk ya dem daje jàng alxuraan yéena yool ba bokk ya dem jafe-jafe yañ nekk suñu borom jeexal ko daje togg aw ñam sarax ko julliti yàlla yi daje jël ndox tasaare ci biir nit ñi ñu naan ñu jublu ca yiw wa fekk leen fañ tëdd ak am solo dafa am benn nit yàlla boo xam nee na dafa gént suñu borom wan ko bat sàq waaye ñaari jataay la ko won ñii dañoo tëdd ci ak lëndëmuk timis nga xam ni loo gën a jëm ci kanam mu gën a lëndëm ñu ci des toog ñu tegal leen taabal ñu tegal leen ay sees ñu wër ko ñu juug ca teraanga ju bari nee na mu laaj lii lu ko waral nee ñu ni ko ñii toog ci taabal ji te tiim teraanga yii seen bokk ya nekk àdduna ñaan yi ñu leen di ñaanal mooy teraanga ji ñu tiim mu ni ko ñii tëdd nag mu ni ko ñooñu de liñ fi indi woon daa jeex te seeni bokk dañ leen a fàtte ñoo bank noonu yoruñu dara mu ni ko waa lu ñuy dunde mu ni ko xanaa bu jullit ñi ñaanee ba pare ni li ci des boole naa ko jullit ñépp loolu lañ leen di séddale kon waras na leen di bàyyi xel ci fàttaliku leen ci ñaan torop am na it keneen nit yàlla koo xam ne dafa dafa nettali ni dafa gis barsàq waaye dafa gis mbooloo moo xamante ne ni lañ yor ci ay xéewal du jeex nee na mu gis koo xamante ne ni fam ni copp ni dafa beru nee na jigéen la waaye yoru dara nee mu laaj ko mu ni ko man dal benn doom bu jigéen laa bàyyi daana ma ñaanal ci ba may door a ñëw waaye da ko mujj bàyyi yóbbanteetuma dara moo tax situation bi mu nekkee mu nekk nitu yàlla koo yeneen a gis doom ja wax ko li mu gis nee na yàlla dogal nag mu daan doxaat ba toll ci armeel far nelaw dab ko mu nelaw fa gisaat soxna si situation ba soppi ko mu laaj ko mu ni ko sama doom de moo ma moo ma yóbbante ay ñaan mooy xéewal yi même boo demee ci maj Majmahun Nurayni sëñ Tuubaa koy nettali importance bi nga xamee ni ñaan am na am na nit yàlla koo xam dañ dafa jaar ci ay armeel suñ borom defal ko kas mu dégg waa armeel yi di xuloo di coow ne mu sëpp leen laaj leen lu ngeen di soow ñu ni ko daam benn njaay yàlla bu fi jaar sarax nu benn lixlaas xul huwallaahu ahad allahu samad ba mu jeex yiw wa moom la ñuy séddoo moo waral seen coow li xoolal yooyu ni mu ni mu jàpp ne ak ni mu yombe ak ni mu jafee ci jamono ji ni mu jafe gars bu ñu jullee duñ ñaan bu ñu toppee ci ba duñ ñaan bu ñu demee fa ñuy denc duñ ñaan loo wax ñun la nañu xaar ba dem ca kër ga fii jataay xaju fi bu ñëwee ci kër ga lijjanti seen bopp ña gën a sës ci néew bi nag ñoo gën a ñàkk fayda ñoom lañuy ñuy toppatoo mooy lu mu fi bàyyi ana lu mu bàyyi waaw mbaa tëj nañ néeg ba ñu ne ah waaw néeg ba de tëje na boo ko defee ndax ñoo ngay soupçonné ña ci des jàpp ni lu fa nekk kës néew dañu ko rawale yooyu la ñuy toppatoo waaye toppatoowuñ fële mu jëm moom te fee mu jëm moom loo indi lañ lay laaj loo indi bàmmeel xamul aw sant xamul ab famille xamul kenn li nga xam mooy loo indi moo tax suñu borom teeloon laa yéene la in ahsantum ahsantum li an anfusikum lu coow li bari bari bari bari del xool li doon sa njariñ nga yëngu ca boo ko defut yaa ngi perte waaye nit ñi moom duñu wéttal in ahsantum ahsantum li an anfusikum man ihtada fa innama di li nafsihi sa bopp rekk ginnaaw lépp sa bopp lay wàcc nag yow teela la xam fi ngay teg sa tànk te bañ a sukkandiku ci li gaa yi wax gaa yi moom li ñuy wax xamuñu ci dara dara xamuñu ko dara loolu moo nu benn mbokk doon nettali kenn ci sëriñ si koo xam ne magam moo ko doon taxawuloo ab taalibeem bu dem mu taxawu ko ba pare wax ñu ko indi woon ni leen ginnaaw yéen a ko xam ci ak maanu teew yéen ko xam yéen a dëkkoon ak moom seere leen ñu seere ba pare kenn ka daal ni sëñ diw mii taxaw nee na diw mii teg na ko ci loxoy diw mu ni ko déet bu ma tuumaal teguma ko ci yenn loxo jebbal nañ ko boroomam bii ñu ci xëppee suuf ma ak yow ci yam xamatuma ci dara te loolay dëgg su fekkee am na ñu ca xam dara ñu néew la waaye dangay gis ñu tiim armeel yi di léeb rek léeb yooyu sax day am ñenn ñu muy daaneel ci biir armeel yi nga xam ne dañuy xaaju di yuuxu te mu wóor na la léeb yi moom yow mu xam dara xam nga ni lii moom ay fenn kese la waaye ñu xamul dara moom da di daaneel ñoom barab booba ci boppam moo mat a bàyyi xel te kilifa yi li war a wax lépp wax nañ ko war a wax lépp wax nañ ko nun noo ci des daam kilifa gu mag goo xamee taalibe bi sëñ Mbàkke Soxna loolu moom bi mu nelawee ay doomam indi ko ci armeel yu jëkk yi am ci barab buñ ko bëgg a rab barabub kilifa njabootu kilifa googu ni leen du ngeen ko fi rob da ngeen seet faneen ngeen yóbbu ko fi ñu téléphoné sëñ Mbàkke di ko laaj ndigal pour mu jox leen ndigal ñu rab ko fa ni leen buñ bu fekkee sëñ bi jox na leen digal foofu ñu ne du ngeen ko fi rab fa lañ koy rab sëñ Mbàkke da leen a wax ni leen seen caaxaan yooyu bàyyi leen ko xool leen fu mu xaj ci armeel yi ngeen def ko fa ni ngeen gis ngeen kilifa googu yi ngeen wax ni moom ngeen di dabb bu ngeen ko wàqe woon ba jot ko jël seen bàyyi teg ci kaw du tey jëfam donk ko fay fekk jëfam rek ko ko fay fekk wa anna laysa lil insani illa ma saa gaa yi bàmmeel de su ko bokk bàkkaar du wàlle bàmmeel de su ko bokk bàkkaar du wàlle gis nga ñun ñii ñëpp buñ faatu ndaw ñu def meen ngaar yi dugal nu fa ñun ñëpp ñu dankaloo kenn war morom ca ka ca des ci ñu suul taxul ñu bokk bàmmeel loolu faaw ngeen bàyyi ko xel taxul nu bokk bàmmeel mën na noo bokk menn pax mun na sóol waaye bokk nu bàmmeel yàlla dafa sew de nu muy lijjantee ak a sew nu muy lijjantee te misaal mu gàtt rek mooy da ngay gis ñaar ñu tëdd fii léegi summi ku tëdd bëgg a nelaw ñu yeewu nga dégg kenn ki naan guddi ki daa gaaw man wëlbatiku sax defuma ko dégg keneen koo xam danaa la li ma fanaane biig moom ba ma ko naree fanaane waa tey jaral na ma toog di xoole ba bët set nga xool ni suñu borom séparé ñaar yooyu rek moo tax yàlla ku koy sóoru xamoo ko nañ leen jaamu ji yàlla te teg ko ci sunna nañ leen gëstu njàngalem Sëñ Tuubaa te teg ci sun tànk Sëñ Tuubaa mat na sëkk wettal waaye lu leer la wax ku dugg ci biir bàmmeel te gisoo ma la tee nga gis ma ci yow néewul ku dugg ci biir bàmmeel danga ma gis de lu leer na ñi la wax te ñam doon waxal ne ku ci dugg te gisoo ma la tee nga gis ma ci yow la dañ koy firi nag dañ ne nit ki su jëf yu baax yi mu doon def moom lañuy soppi ay nit yam gënoon a miin gën a taqoog ñoom nga xam ne fu ñu nekk am xelam day dal ñu nekk ci biir bàmmeel di la wéttali ba keroog bis penc di taxaw soo jëful lu baax nag kenn du mën a soppi sa jëmm jëmm joojee mu ñëw di la wettali waaye kenn du jóge ci mpaxam ñëw ci sa mpax di la wettali di bàyyi mpaxam loolu mënta ne kenn ku ci ne sa mpax ngay tëdd kon la lay wettilante leneen la mooy jëf yu baax yooyu yi lañ ci war a góorgóorlu waaye noonu àdduna dañoo jiital nuy ngar-ngari rek ci loo xamante ni du dara dañ koo matérialiser ba bu ñuy wër sëriñ bu bu am barke sax bu yor oto bu baax lay doon yor kër gu baax yori koppar waaye koy sol as am mayluus muy tilim daal di daanaka di njaawaloo dañ daan kii yorut dara même boo demee armeel sax fi mu doon nii barab yi ñu marbo bu gaa yi moom la ñuy wër bu ñuy siyaare waaye bàmmeel yi ñuy joggi moom faale wuñ leen faale wuñ ñooñ loolu mooy matérialiser gi ñu matérialiser àdduna te yooyu dara amu ci njariñ lu mu bari bari fii nga koy bàyyi gis nga àdduna bu ñu ko dajaloon def ko ci saako jox la ne la léegi yàqu moom mi ngi nii boo nelawee fàtte nga boo dee ñàkk nga bu ñu ko dajale woon fi mu nii la léegi àdduna ngi nii léegi son nañ ko bi saako am soo nelawee fi mu doon nii xamatoo loo moom boo dee moom ñàkk nga waaye xoolal subhanallah wa bihamdi xoolal baat yooyu ni mu gàtte te ñi la xajul ci balance te yow mënoo koo wax nga topp garam place yi di werante rek boo xëyee nekk ci ngóor si rek ngóor si nangam ak nangam bi mu defee nangam yu nangam ah. bu gaa yi añee bu ñu del siwaatee nga dàmbaliwaat ni lu ma leen waxoon li nangam ak nangam dund goo xamante ni day sànku ci maali foro noonu war na noo yeewu war na noo yeewu bu baax a baax te dëgmal suñ borom te wan àdduna gannaaw li ma waxoon ci bi may tàmbali rek jëkk a war àddunaay sa ndam bala laa war jëkk koo wor mu rus ba dee di sa tiitar ku mu àndal lu yàgg-yàgg da lay wor bëgg laa nax ba war la rekk di lim nag ñaata nit nga fi gis ñu liggéey bañ ni léegi am nañ xaalis toog lekk ci des yàlla ni leen waaw kay kaay leen bàyyi leen ko fi te ñëw ñaata nit nga gis ñu tabax kër bañ ni la bi sàngam lañu war a sanc yàlla ni ko doo ci dugg yow ñaata ñaata nit nga gis ñoo xamante ne ni bu fekkoon xaalis doo ngay tax a teedee moom danga naan ñooñu moom dañ fiy des di dund ndax bàq yàggee boo fa demee danga nga xàmmee fi mu doon ni ku yoroon dara ku yorut dara ay jal rek ngay gis ay jal dong ngay gis la leen wutale nag ma nga ci biir loolee leen wutale ci lañu war a góorgóorlu yëf yi déetu ay waxi kese wax ju ànd ak jëf la waaye na ngeen wóor ni daal sëñ Tuubaa moom képp ku ko roy 24 heures da nga wuute ak say morom te sëñ bi fi mu doon nii waratuñoo sax déglu ñu naan fii la jaar li waroon na déglu fi mu doon mooy sëñ nii la daan def soo paree rek ma tàmbali. loolu waroon di déglu fi mu doon nii sëñ Tuubaa nii la daan def rek nga xam ne sooy noppi rek may tàmbali waaye fii la jaar fii la jaar fa mu jaar mën mun ma faa jaar te nett li ki daanaka amaluma njariñ nañ ma wax lim daan def. ma jéem ci sama kemtalaay kàttan lu ca des ma diis ko suñ borom bàyyee ko sama bopp yàlla buur bu am yërmaane la wallazina jaahadu fii naa la nax yenn lanahdiyannahum subulana yàlla ku daw wuti ko mu gàttandu la kon nan jaajuwaat te feddiliwaat sunu laxasaay te dëgmal sunu borom te dimbali gone yu tuuti teg leen ci aw yoon ku ci tollu ci jàng nañ ko jàngal nañ ko jàngal alxuraan jàngal ko diineem su ca noppee nañ ko jàngal mécc lii ma gis moom xawma ko man ndax gone yi dañoo démissionné ci liggéey te mag ñaa ngi néew doole loolu na kër yu tas dong lay indi gone yi demisone nañ ci liggéey te mag ñaa ngi néew doole loolu moom kër yu tas dong lay indi mag ñi daw nañoo daw a daw bay bëgg a dee gone yi moom dañoo seex te tàmbuleeguñ loolu nag doo indi lu kenn xam te Sëñ Tuubaa bañ ne ko ndaw luñ yorut dañu bu màgget di mag mu xamadi mag mu xamadi moom lu mu yor dana ko yàq lu mu mujjee itam dana réer du am njariñ te li nu dal lu ci bare bari loolu rek nu ko teg nit ñi moom àdduna danañ ci sonn waaye alaxira jëralu leen dara da ngay gis koo xamante ne ni fatiye ju sell dong mokkalu ay farataam dara la ci xamul waaye boo ko bëggoon a toog ci lool ci daara ñaari fan ngir nga mottalil ko loola lànk lay def waaye boo ko ne woon gis naa gaal gu mën a dem Espagne goo xamante ne nii saa ay nangam ak nangam wala oto buy delloo ngi fii boo xamante ni mën na laa yóbbu nangam da ngay dégg koo xamante ni maam coono bi mu daj ci désert bi pour jéggi dala koy nettali te mokkalul fàttee ju sell nga xool kooku li ko àdduna jaral ak ni mu sàgganee ëllëgam ndax kooku nit la déedéet du nit nga gis nit ñoo xamante ni li ñuy daj ci wutub dërëm te yàlla jaralu leen dara dangay gis ñoo xamante ni ñoo nga dëkk ca fa dëkk bayam daanaka waaye fajar la ñuy dem marché Ocass te bu ñu jaar ci jumaa ja dañuy fekk ñuy julli waaye yàkkamti la ñuy def ba duñ fa jaar julli dañuy continuer dem ba marché ngay lali carton di fay waxtu ndaxub dërëm gis ñoo xamante ne ni bañ gëjee julli fajar ak léegi kenn xamul kañ la te bëgguñ buñ bëggee oreelu heure bu leen neex la ñuy yeewu mooy yàlla la ñorul gis ñoo xam ne dañoo tàyyal ba bu ñuy julli seen kër dañuy gàppur di la wan ne la samay tànk da neexatul te fi mu doon boo leen waree dara wala nga weef leen ko ñoo koy jëlali seen bopp wóoluwuñ kenn ca kër ga ab dërëm daal jaral na leen lu ne moom waaye yàlla moom jaralu leen dara dara dara dara loolu nag ku ko ci defit naxoo kenn sa bopp ngay nax ndax ëllëg dana ñëw sarxe képp ku ko ci def nga gis mu commencé wonk sarxe képp même dong yi fi mu doon da ngay gis bu ñu ñëwee ci kër ne sarax ndongaañ ñu sarax ko kaneen ni sarax ndongaañ dongam ñetteel ba da ngay dégg ñu sukk ca ndab la naa ko yow yéen kër ni ngeen yalwaan ni baaxul da ngeen war a tasaaroo dara ci yàlla lañ soxla woon yooyu dafa ñaaw yalwaankat yi yalwaan fi mu ne koo ci jox téeméer ni mu ñemewu laa wan gannaaw ndax tam mu ñu sarxe téeméer moom kay dañ lay jox téeméer ni la weccugul jël juróom yi jox ma 475 yi waaye koo ci jox téeméer ni kell mu taxaw di la xool ndax wóor na ko ni moom weccat ngay laaj waaye joxoo ko téeméer boo weccu ko ñaar fukk sarxe ko commencé jàmbat dëkk bi ni mu bare yalwaankat fii moom kenn mënu fenne nangam ak nag te boo ko joxewut ci yàlla adduna lekk boo ko defut ci yàlla adduna lekk léegi sa téléphone sonné fii jongama ñaan la 1000 francs ni la crédit laa bëgg nga dugal ko pare di meccutu te yaa koy woowaat di ko laaj ndax jot nga ci kat waaye moom boo ko envoyé du la mu woowaat mukk naa la jot naa ci merci day continuer dafay démarche am yaa koy woowaat kay naa ko est-ce que message bi ñëw na mooy loo lankal yàlla rek àdduna dana la forcer jël ko te du la ci gërëm kon nan dellu ci yàlla ginnaaw bu jaaxle ci moom la ñuy dellu nan dellu ci moom àdduna amut solo bis bi set nu wannu ko bis bi set dara wannu ni adduna amut solo bis bi set mu prouvé ni adduna amut solo xam nga yonent bi daa wax lu am solo dañu àdduna suñu borom da ko peese ak laafu yoo laafu yoo wi wat waaye su àdduna watoon ab yéefar du ci amub góox loolu wopp jii rek puree na ko korona bii rek puree na lool parce que corona wopp la joo xam ñun ñëpp àndandoo di ko daw kenn xamul foo jëm waaye mëne su ko gis te laafu yoo boo ko tegee ci sa loxo man koo gis kon laafu yoo ëpp àdduna te corona moom tëye na àdduna àdduna la tey mu taxaw benn place dara doxut ndax corona. loolee aj màkk ñun la amut nga ni jàkk ñun yi yenn jàkk yi nañ ko tëj ndax nangam. boo ne marché ñun la marché wóorut loo wax ñun la loolu wóorut nangam ak nangam te yow li ngay daw xamoo fu mu ne tee ngaa dëgmal sa borom benn yoon ginnaaw moom daw dee dawut dee léegi koy demal defi li nga war a def rek dee ab app la loolu lañu war a gëm mooy dee app la àpp la boo xamante ni bu jotee da nga dee li fekk àpp ba jotu nag kenn mënu laa ba wax ba nga àgg ca bokkut ak wopp wopp taxut a dee wopp day naqaril ak dund mais wopp taxut a dee waaye dee moom ab àpp la boo xam ne suñu borom da koo bind da nga cay àgg rek léeg-léeg nag mu jaari ci wopp léeg-léeg mu jaari ci accident léeg-léeg mu jaar léeg-léeg nga gis ku koo xamee ni la ko rey na ko ay yoon te deewu ci koo xam ne dara jotu ko mu dee gis koo xam ne day nelaw du yeewu gis koo xam ne day wax ak yow ba mu yàgg mu ni këndëng gis koo xam ne day dox ba mu yàgg mu daanu loolu coobari suñ boroom la ndax fii la nëmmut kenn des fi ab dëkk nag ku ko bëgg a tuxal fobi nu néegu ne da ko gis ku bëgg a taxal ab dëkk fobi nu néegu ne da ko gis yooyu faaw ñu bàyyi ko xel waaye lu def daal nun lu dul ragal yàlla loolu du suñu avantage ragal yàlla dong dong dong lan war a def te daw wuti ko te nangu koo jaamu te teg ko ci sunna loolu daal ku ko def yaa ngi ànd ak sëñ Tuubaa ku ko deful nag yaa xam ka leen koo mën a àndal neel diw la waaye du sëñ bi moom kon noo ngi wàcce foofu sunu kàddu noo ngi jégalu bu baax a baax kàddu yi xëy na diis na neexul waaye dëgg la neexul moom diis na itam ndax nit ñi moom dee lañuy bañ koo dégg waaye la Seex Tijaan si waxoon rek nee na àjjana ngi ci gannaaw mbàq gu nëb kon yàlla na nga dem àjjana mu ni amin daal di raawe waaye kon yàlla na nga deemu banki loxoom nan ngay demee àjjana te déewoo mënta ne àjjana moom mbàq gi day nëb ba pare nga door faa dem bu jegee sori na walla metti na waaye lépp yéenal rek bëgg dal gàllankoor yi àdduna yépp suñu borom teggil nu ko suñu borom nar gan di ci jaamu ko te nangul nu jaamu bi te melal ko nam ko bëggee barkeb sëñ wa ndax sëriñ bi loolu rek ku fi indiwoon ndamal sëñ bi daal mooy nun nu doon jaami yàlla yu sellal loolu mooy ndamal sëñ bi te ndamam lool yi kenn ku nekk ci ñun war na ko cee dimbali mooy kenn ku ci nekk dangay ngay fas yéene fa sëñ bi waroon a féete nga féete fa sa bopp ci jubbanti sa bopp ndax wax na ko nee na àdduna daa mel ni jëmb bu sax dee ba wow korong nit ñëpp dugg ci biir seytaane doxaleen gannaaw taal ko taal jëmb bi sëñ bi nee na bu boobaa samp saw xel di daw du solution waaye da ngay fexe ba lii la wër set mooy dañoo toll ci jamono boo xam ne kenn ku ne da ngay fexe defar sa jëmm mooy tax tàkk-tàkk li buy ñëw du la ma waaye mbon gi nga xamante ni moom la seytaane sànni ci àdduna fi mu doon nii moom mucc ci yombut ndax suñu borom daa deseetul ci kaw suuf lu toll nii fu mbon gi àggul suñ borom deseetul ci kaw suuf foo xam ne mbon gi àggu fa amut ku bonul nag am na moom waaye fu mbon gi àggut ci kaw suuf moom yàlla deseetu ko ci kaw suuf foo fi taxaw ni jàng gis fa loo xamante ni nii lu bon la loo xam ne mënoo ko faa jële sa moroom mënu ko faa jële te sa njaboota nga ci kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye yàlla nanu yàlla dimbalil boppam ba ñooy ñii jàdd yoon nun duñ ca bokk yàlla nanu suñ borom nangul sunu njàmm te sëñ Tuubaa nangul nu sunu tali bu barakatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggalu bu baax a yàlla na yàlla boole dimbali wasalaamaaleykum wa rahmatullah anta rafiqi lil jinaan yaa man yasoonu lil makaan waliidu tayyibul janaan yaa xayra sikrin muhkami yaa xayra sikrin rutila bi fammi sa kirin tala سوايا من خلا وليكن واكمي يا خير منسل يري ما غبس تدبري ربي يصفي فكري بك بخير تهمي yaa xayra sikrin qad jamaa xayra uloomi wa xamaa li ayda yawa manaa minni asaata wa humi anta sabili wal aniyaas li xutabaay xalmaxiis بقمة الماء رياس مكيسي بالملم يا خير سكر القلماء ماذا قلبي فما هب لي يا كوني مبلاه بالمنسل المفهم bika saaltu maalike kawniya nooran saalike wasanjisa binaasike biman jala wal mubhami waayaqoo dali nabi fi abadin min nuxubi سلامي المقرب بالانتحن والمقتم ويقول للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بالانتحن والمقتم rabbi bima yasraul asana qad fajaa bijaahi afdali man lillahi qad lajaa hamdi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadriyal yawma nooran saati'an malaa محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل بك لا أدو إلى إلى أمن مواهبه لي جملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل ومن وكرمني تكريم هاد وكل لي من لقن بريئا رحمن حب لجميع الخلق رحمة من يغني أني سر من قرآن قرأ رحمن لجميع الخلق رحمة من يغني عني سر من قرآن قرآ أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم القلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل أن خادل ارحم جميع الورى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء موت ما قد نهى القلب من درر بجاي أفضل لمن لله قد لجأ موت ما قد نهى القلب من درر بجاي أفضل لمن لله قد لجأ